بكلن كفرة وابن لم بسودان والله بكلن كفرة وابن لم بسودان والله يمودي ما مخالف صلى الله عليه وسلم دي كونتان سي تيو بيغا خامي تيو نانكو سي بيس بي دي گرم بروم ا جتا بيغا خامي مو ني سببال تيرانغ جوري جي مو داغلال ديغنت بن في نيو اك ليغي گاتنا واي رون نان في لو خامي من نان سي جيرو ياغ ياغ كي مو جي واخ ليغي رك leral na fi ci taarix loo am na lu luñ ci xamoon am na luñ ci xamutoon te liñ ci xamutoon leeralal nañu ko kon ñu ngi lay sant di la gërëm si duutoon jataay bi loolu duñ ko ci xam eh, ñaari Ibrahima yi nga xam ne ñoo seq jataay bi muy ki yore microcentral bi ak ki nga xam ne moo fi oo nit ñi ne kaay leen ngeen ci dëri xal jëne yi su tey bii ñoom ñaar ñëpp teraanga ñeexal na leen ndax yiw lañ bëggal jaam yàlla yi ak mbooleem ñoo xam ne dégg ñu ngi dégg rajo yi te mën a ñooy teew ñu ngi ci jot seen cër ci li nga xam ne mooy tiraangaay tey ji ñun nag ñu am ci mbégte lool mbégte moo xam ne mun nañoo ñëw teew ci suñu jëmm waaye mënuñ ko tudd ci suñu làmmiñ euh, xam naa Cheikh Ibra Niass mi mënoon na cee wax lu bari waaye xëy na xol bu yaatu ak bëgg tiraanga ju gën a yaatoo sabab mu yaatal ko mu xaj ci fii moom kenn rek bu ñëwoon teew ci tur Mouhamed Ndiaye doy na sëriñ bi bés bi nga xam ne tuddee nga ko Cheikh Mouhamed Ndiaye mi nga xam ne suñu wëllëre la yàgg ak moom xam ko itam man naa am xamuñ ko dëgg-dëgg waaye xam nañ tuuti ci moom li tax nga tuddee ko bés bi juumaloo ndax bés bi comme ni ko euh, ki génn léegi waxee ci suñu maam Cheikh El a Abdou Qadir Sall noonu la demee moom itam ci maamam soriwut. boo demee fii nii rek ci boori Farafeñe da nga fa fekk kaxeen yoo xam ne yaakaar naa ne tund woo yëpp ñoo leen ci xam-xam te moom bu duggee foofa jumaa jum dugg mooy jiite moom Mohamed Ndiaye mi bu nekkee Medina nag taalibe la ndax dafa ñëw ut ci xam-xam moo ko fi teg maamam bi mu ñëwee ba jot li muy jot ci maam yi ak ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci moom njiiti doomam lu mel ni Baye Khalifa mi nga xam ne naan nañ ci seen géej dañ leen a samp ñu dem toog fële di liggéeyal tariqa tijaan waaye di liggéeyal diinul islaam rawatina nag di liggéeyal faydu baay bi nga xam ne lépp moo ko tàllal ndax fekkoon na fi ay jafe-jafe yoo xam ne am ñu mel ni ñooñu ci xam-xam rek samp leen ci milieu yooyu moo mën a tàllal yoon ndax bàyyi wax na ne aw jot dinañ xaqal li jabril kasri fa inni wakiilu sirri sirri su fekkoon ne xamul jàmbaar yu mel ni fàq tëdd yooyu nekk foofu. konoon du mën a tàllal lam fa tàllal fu ne nii fu la neex def fa daayira te ñoom ñoo toj àll booba kon Mohamed Ndiaye mii ñi ko meññ ci maamam ci wàllu yaayam ak ci maamam ci wàllu baayam ñoom ñëpp niti tariixa lañ niti faydu lañ waaye nit ñu mokkal alquran ñu xam yàlla lañ waaye nit ñoo xam ne ñu xam xam-xam te ñu dëkk bi jox cër lañ tey boo demee kër maam El Hadj Ousmane Fati baayam bi nga xam ne mooy rekk baayam nekkoon fa. mën naa ne lépp loo xam ne xew na ci kër gi su moyee doomi sëriñ bi kenn du ci jiitu te loola xorma la ndax xam naa ne njaboot ak njaboot gi sëriñ bi yar kenn mënut ko ci muy Sërif Njaay nga xam ne ñëpp moom leen ko siiwee bàyyi na si Mohamed Njaay mii li nga xam ne mooy deret yi maamam yi ñoom ñëpp mokkal nañ alquran moom mii bi muy ñëw fi alquran moo ko fi indi woon yàlla dogal na mu jàng ko mokkal ko ci mokkal bu rafet alquran jooja moo ko fi ndax alquran gannaaw alquran am na leneen lu cee topp te mooy xam-xam yàlla dogal mu dem ba yàlla dimbale ko mu bokk tey ci doom yi nga xam ne ñu ngi leen tudd ci dëkk bi kon nag loola tiraanga la dëgg-dëgg bàyyi dafa wax ne ku ko lebal ker mu fay la guddi loola lañ gis ci tiraanga ji yàlla jox Mohamed Ndiaye mii su juree koo fële ñëw jàng si fii mu nekk ca Gàmbi samp fa daara di jàngale alquran beneen bàyyam nekk ca dëkk ba fële Pagala samp fa daara di jàngale alquran bàyyam Sëriñ Ndiaye samp daara di jàngale alquran moom mu ñëw Medina Baye jàng alquran ba mokkal ko dëgg-dëgg kon eh, tiraanga jooju si alquran yaatal nañ ko waaye moom itam sàkku ci bi mu sàkku si woon alquran gis na ne gis na njariñ lim ci lim ci doon ut ay waajuram itam gis nañ ko sëriñ bi wax na léegi ci waxam ne xam na doom yoo xam ne seeni bàyyi di leen tiitaroo si ñoom moom mii ci la bokk xam na foo xam ne maay doomi Mouha man maay bàyyi Mouhamed Ndiaye pour nga xam te li bëgg moom xàgg na ca maqaama mooma yàlla may na ko ko kii nga xam ne tey mooy Cheikh Ibrahima ñu tuddee ko jotaay bi yàlla rek leen boole duut ne deret moo leen boole de yàlla moo leen boole si bunta Cheikh Ibrahima Niass mii nga xam ne ñun ñëpp moom lañ yàlla boole ñu nekk moom di ànd ak moom guddi ak bëccëg lépp loo xam ne xew na ci suñu biir doy nañu ci óolu nañ ko ci itam yàlla dogal na lépp lu ñuy dem moom mi bu fekkee demut dana ma oo wala nga xam ne ñoo ànd dem te duñ mos a réeroo saa su ne ñu ngi diisoo lu ko waral Mouhamed Ndiaye mënoon naa wax ne sama bopp doy na ma waaye du ko def dafa am ñoo xam ne dafa leen doyloo teg leen ci kanamam boo xamee moom ñoom la bu ñàkkee ñoom ñoom ñoom moom la lépp lu xew si famille ñu ne ko Ndiaye jugal dem yaa koy doxi rek mu ne sama gars yi jóg leen ngeen dem taxawal ma ci loola man sama yoon nekku ca su laajee def daal wax leen ma def loolu la ñu yàlla boolee ak moom ñu ànd ak moom itam ci liggéey ci faydu lépp lu jóg jëm ci mbiram tariqa tijaan buñ ko ne Ndiaye def jugal def dañuy déglu rek bu ñu ko ca waxee lu dal xelam ñu war ko def lii ak lii moo tax nga war a def rek mu jóg def ci wàll te Cheikh Ibrahima xam na li ma ciy wax bu baax bés bii nga xam ne yàlla dogal na ñu tuddee ko ko biñ ko ko tuddee bés xamuma woon kan la mu ma kii ma tuddee si Cheikh Ibrahima laa ko xamee te yàlla rek moo ñu boole mu xam ma waaye teg na ma foo xam ne bés bii mu tuddee bettul ma ndax itam xam na fu mu ko teg te tiraanga ji nga xam ne ji ko sa diggante ak moom lu rëy yi la ci moom. rawatina nag bésab tey bii nga xam ne yaa ko jël jagleel ko mu muy teraanga bu yaatu li fa waa Gambie wàcce ku ne xam na ne su fekkoon teraanga ji yaatu du génn dem Gambie kon nag bu fekkee li nga xam ne nga jë jagleel ko ko moom sax su fekkoon ne mun na mooy gofil jataay bi lépp lu ci war mu def ko même bu ko mën xolam bi moom xéene na loolu te insha allah beneen yoonee fekk yàlla def man mën a yokk ak loolu yàlla mën a may ci wërsëg yàlla na fekk mu yokk santul la nga def ci dara lépp lu mu ci man moom dina ko def ba nga xam ne dëgg-dëgg xandoo ngir yàlla xam na njëriñ te itam bëgg na nag lool ci lii rawatina itam ba nga ñëwee indil ko añ indil ko ay tiranga mu bett ko lool yàgg nañ koy tuddee nag ay bés waaye bii daf cee rawati nga xam ci yëg-yëg ci moom jël sa tiranga dawal sa oto ñëw ba ci kër gi yor yor ko ko muy première fois bu ñu ko defalee te ànd ak tiranga jure seq na ko nit waaye na ci yoo xam ne daawuñ ci àgg. boo ko yëgutoon du la ko jaral am nga ñeneen ñoo ko tuddee ci deret am nga ñeneen ñoo ko tuddee ci dëkkaale am nga ñeneen ñoo ko tuddee ci ay àndandoo am nga ñeneen ñoo ko tuddee ci ay patron yoo xam ne ay am dafeer leen yoo ko mën a tuddee kon nag soo bàyyee ñoom ñëpp tuddee ko dëkk dëgg kontaan nañ ci loolu da gis nañ ne cër bi yàlla rek a tax duut ci deret lañ koy génne duut sama kër papa la jàngee waaye yàlla rek a tax tuddee ko joxul la tiraanga joo xam ne sax amoo ko waye li tax li rëy ci mom moy li tax nga jéggi ñëpp dem ba ci mom tuddé ko ko en tant que sëtëb mam Khalifa Niass sëtëb mam alhadji abdullah Abdoulaye ñi fi nekk ñëpp te man dara te xam xa alal de nga jégal la nekk ay kilifa di sëtëb mam alhadji Hadj xam leen ni mu bëree nga jéggi ñëpp ne man xébu ma leen dé waye ki dama ko xam ci yalla te japp ko te yalla tax ci buntu sama soppé sama xarit bo xamne ku ko téral man nga téral mu Cheikh ibrahim Niass ci loolu nga sukkandiku ba tuddé ko guddigi handak mom ba ngeen xamanté yagut waaye mel na ay at ngeen xamante mu ngi sant mu ngi lay gërëm lépp lu mu la defal nag xeeb na ko waaye mu ngi lay ñaanal yàlla ci làmmiñam ak ci xaalam xaafisu alquran la fu mu mu ngi jàng lu mu gaaw gaaw gaaw bu jullee balaa moo jóg dina door ay ay ay isib yu am solo waqaf comme ndox la koy def alquran macha allah yàlla koo may sonn na ci lool ba mu koy jàng waaye mokkal na ko lool itam loo gaaw gaaw bu ngeen di sax si alquran boo yéexee mu kon foofu nga cuq ci alquran mu dem te noonu la ko yabee te xeebul ko it nag xale bii mu ànd ak muy jëbel mii alquran ko booleeg moom de su dul alquran du ànd ak moom am na ay mag yu bàyyi ci kër ga waaye bëgg bu bëgg alquran moo leen lëkkale seen diggante Cheikh Ibrahima mii yàlla dafa doon mu nekk doomi pie bi ba pare bokk kër maam Ousmane Fati moom mii mu nekk taalibe bi ci kër maam Ousmane Fati yàlla boole seeni bàyyi ba pare yàlla ñëw boole ànd ba lépp lu xew ci këram rek bu ñu na rek ay papaam jaratul ñuy ñëw dañ koy wax ne ko doyloo nañ ko kon maa ngi lay xamal ne fi nga teg sa loxo baax na te it juumoo ci gim ko tuddee te sa soppe bii Ibra mel na ni moom nga ko tuddee jàppal ne rek lépp loo jëfante ak Njaay rek jëfante nga ko ak Ibra ñoom ñaar jur ñaar kenn lañ yàgg nañ ay at at te ànd nag ko li sëñ bi wax léegi bu fekkee ànd ak yàlla ànd bi yàlla rek ko lal dafay sax te dafay yàgg waaye nag bu fekkee duur yàllaa ko lal mën naa ñàkk yàgg ànd bii nag alhamdulilah ay ati at la du ren du daaw yàgg na xëy na yàlla nga door a dogal nga xam ci lu bëri liñ ci xam ni ba nga jël tiraanga ji te léegi tegaat nga ko ci beneen yoon boo xam ne am na feneen fu mu la teg moom tamit ndax lii tuutiwul ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu lay ñaanal yàlla lépp loo man ren ba def ko déwén yàlla nga mën li ko ëpp yàlla na yàlla def bés bi màgg bañ ko defee stade te lépp yàlla nekk sa doolee bopp bu ci yaakaar dërëm benn nit si barke alquran yàlla dem ba buñ koy def mboolem xaddina bi ñëpp ci teew biir réew bitim réew jël seen avion di wàcc si aéroport Kaolack bii ñëw di teewee si bés Mamadou Abdoulaye bii ñu dem ba def ko bés boo xam ne moom moo nekk premier yàlla mën na ko yàlla ko def ñun ñëpp ñu fekkee ko bu ci kenn manqué suñu mbokk yi nga xam ne ñoo doon def muhaadara bi sànq tamit ñu leen sant di leen gërëm di bëgg si ñoom di leen ñaanal yàlla tawfiq aleykum wa wa barakatuh ki téye Sénégal mbokk fi ñëw daal gàmmu fii moo njëkk a gàmmu wax ne mooy jaamu moo ay ci nàmp xol yu xomaat ya moo njëkk a jël paas siyaare faas jëlee fa ay gaas yu brewee gaaya ma Abdoulaye Niass moo njëkk a jël paas itam ya mama la yab laay ñas ci bu taxutoo ana ko maar Sénégal rek am koom tubaab bi daf ñuy noom ak seen madame ya mama la yab laay ñas xare na somb si biir bomb doonu toll yomb sa jamono yooya moom xeex na pàtt ba jaan daqe fay ndaama ba ñu bàyyi caaxaan داني خلم يا كسب على جبل خليفة نفر خليفة الشيخ رجال شفني تيك وتحطه هنا منك أمكم تبابي دفني ما أكسين مدام يا مم خرم الصف سبيعي بامو daaya moo jàngal mboole mboole dooma ñooma ñemul ñem ba ñu bëtt ay leem raw seen borom ya mamala jablaay nas moo jàngal mboole dooma ñi ngeen yéem ba ñu bëtt ay leem raw seen borom ya bam demee eh, faas mam alaaji bay na borom ñaari at dajale ne day dem faas mu dugg batu batu batu batu jaar Dakar jaar France wàcc danse keroog sedd bu métti moo am waaye mooy bu ko ndox dalee rek day daal di sut mu tawal suñu borom ne ko man fekkee bokk naa ci seen xalifa yow Cheikh Tidiane maa ngi jëm si yow di la ziyaare ndox bu malaal malaal taw bu métti la Maroc ku xam tawam juróom benn weer da koy daw fu mu jub mu daw bu ko jubee rek mu sebet buy taw buy taw rek mu sebet maam laa jëm laa jëm keroog na ñëw war baax la jaar si taaj wàcci joxoñ baaraam bi ne alhamdulilah ala wusuli lifaasa daal أسقيا عبدك سليل مولانا يا حب سيدنا تتمازحت الأقطاب معرفة وغيرهم مسلم منكرون معنا شهوة أنت أعلمهم بالله أكثرهم خوفا له سلوى فاس من دانا حمدت ربي إذا ما كنت تابعه يا ويا مبغني من سموه كان يكشف الحمايا أبي أسمعنا سيح هذه هديتنا هذه هديتنا فقص إليك بها ثم إلى حبنا حبيب مولانا شيخ وطهر القلب والجسم يا حمر يا حدرا سامعا بالمن منانا اسمع إلهي يا مولانا سارينا بجاي سيدنا وجده أجبا فسرعة سرعة الرحمن رحمانا

Seexul Islaam borom kàlla bu tedd ga ak faas ya borom jaasi lislaam mooy ne Seydina Muhammad waaye sama sëriñ Xaadim Rasuul na saay ba ne Seydina Muhammad Seex Bamba ma naaw ahlul fasaxa turan turan bisalaam saraxoo wala sa jublu ak waa bi taya Bamba nekk وعسان والبسير خبره وكلهم سيحوه نور وأمراض ومبلغ منه فيه أنه أثر وأنه أنه أمر أفكار فلا تحيط إلي بالفدناء من الجمع إلى جكن من الكواكب يحيى للمساواة كل سيد سيد للمسابقة للمسابقة وينك وينك إمام المرسلين وينك وينك البشر وينكم محمد رسول الله متحمد رحمة للمتفق منصلة لوجهك وعرف الورى mooy wuti gënee yem ci Seydina Muhammad jël nga jël nga jël ci moom la tàmbalee ci moom la yem mu ne raama nay la fadila fadila musri'ina lahu wal fadlu inda rasulillahi xarra kilta yadayhi laha sahyun tulasimu masnun masnun wa baxsun liman lam محمد خير من يمشي على خدم محمد خير من لا خلق مهك مهك مختار سيدنا خذ المقال يا ولدي وأهلي وسدعوا دله حجم من كان سيدنا محمد tolo way tolo way tolo Sëriñ Tuba nee ku xas bay way nga faru way faru yoon mbaa alaf ba nga def yoman si am ngeen tolo yoo Muhammadu Rasulullah yaa gën a te gën ñi bëgg a ñëw bëgg a ñëw soo ko ñaanee léegi mu mel ne léegi soo ko toogee jërëjëf ay at waaye jëfam rëy na lool ci bëgg diine ak bëgg xam-xam ak roy ay maamam ak roy ay baayam koo xam ne Majmaa al ni laa ko tuddee ci maam alaaji ñaari côté la ci bokkee su demee ci wàllu baayam dafay tibb di joxe nu ko neexee waaye bu demee ci wàll yaayam tim dafay tudd dafay tibb joxe nu ko neexee loolu fadlullahi la yutihi man yashaaw bokk ci maam alaaji ci yaay rëy na lool kawe na lool ngëneel du ko féetee kaw bokk ci maam alaaji ci baay rëy na lool ngëneel du ko fete kaw waaye nga bokk ci maam alaaji ci sa ñaari côté yëpp kuy sa baay baay alaaji mu tuuti nga xam ne jëmm ji rekk a tuuti waaye ay xam-xam ba boo ko yoroon ay ragal yàlla ga soo ko yëroon ay ni bëggee diine nim mu nuree maama maam El Hadj Abdoulaye kooku moo kooku kan moo ko jur maa Amadou mi nga xam ne doomi maam El la woon am xam-xam ci lool bokk ak maam Khalifa ak baay waaye boo ñëwaatee ci wàllu yaayam maam El Hadj mi nga xam ne doomi maam Khalifa la nekk Khalifaam nekkoon koo xam ne ñëpp xamoon nañ ko ci wilaayatu ak xam-xam ak yore sirru fa yakun kooku nekk maamam. kon moo tax ma ne kon moom majma al bahrayni la fu ko neex lay tibbee kooku la ñu war a jox kàddu gi te moo fi dajale nit ñi ne maam alaaji Abdoulaye lay taxawal bés maam alaaji mi nga xam ne waxoon naa bi may ubbi ne Mawlana Cheikh al Islam alxaaj Ibrahima ministère bi mu njëkk a taalif muy ruuxul adab yar taalibe yi ci teggin pour ñu xam seen digganteeg seen sëriñ bàyyi bi mu ubbee bayti bi mu njëkk a wax ne dafa wax ne yaqulu ibrahima najdul xaaji abdul ilahi badri nal waxaaji kuy bind téere fokk nga présenté yaay kan mu présenté boppam ne ibrahima mooy kan mooy doomi alaaji abdoulaye alaaji abdoulaye mooy kan mooy weer wu leer wi nga xam ne dafa leerante moom alaaji dafa am xam-xam ba xam-xam bi jéggi dayoo waaye xam-xam boobu daf koo jël tasaare ko ci ay doomam ak ñoo xam ne duuñu ay doomam ba tey jii xam-xam bi tasaaroo na àddina bi yëpp bi may ubbee waxoon naa ne bàyyi way na ko ci seerul xal bi ci benn bunt boo xam ne dana néew bunt booy buntu booy buntu dugg ba tëj ko te duwul ne wax na wa min waalidi wa cheikh yi sama sëriñ sama baay ci way woowu دافكو فا وسوس بو خامن مون داف ما نيه داما كاي بوبلي وقت بو نيك رضي الله عن الشيخ واسلي ومرشدي وقد عاش يهدينا الى الدين الناصر بخزو وتعليم وحج وحجرة وعاش شكورا وهو قد عاش صابرا فوف رك دا نفاي دغ ني امول لوم بايل مام الادي يالنا يالا غرم سما سيرين باي بو وخي سما سيرين رك بايام لاي وخ سما سيرين كيغا خامن تي موم لا جوغي كو موي سما واجور ki nga xam ne moomu moomu jubal ki nga xam ne moo ñu yar jubal ñu teg na teg ñu ci siraatal mustaqima ki nga xam ne xare na ki nga xam ne gàddaay na ki nga xam ne aj na ki nga xam ne jàngale na dund ci gëm yàlla dund ci sant yàlla dund ci muñ ci yàlla ndax natu mu nekk jot na ko waaye muñ ko ba tey jii nii bànneex bi ñëw nga gis ne ay doomum tay jini xol ligeyam bi biñ ko jëlee fiñ ko wasaare ci kaw ci aduna bi yeb fo dem xam nañ xalifat xaaj Mouhamad foo dem xam nañ alxaaj muhammad Zeynab fo dem xam nañ alxaaj babakar al awal fo dem xam nañ Cheikh Serigne Mbaye Niass foo dem xam nañ maa Amadou foo xam fo dem xam nañ maam Cheikh Omar Khalil fo dem xam nañ maam maam Ama Niass dem xam nañ foo dem xam nañ foo dem xam nañ Maulana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne yaa جي اك طريقه بي ak faydu bi dugal na ko ci àddina bi yëpp te loolu yëpp wax na alxaaji abdallah doomam ne ko muy dem di aji mu ne ko boo demee bul fàtte euh, taalibe yi boo demee bul fàtte nangam waaye boo demee bul fàtte waaye boo demee bul fàtte sa maam ki mën a tuddee naxnu fa kullu ma naxnu xasanatun min xasanaatihi bépp teraanga boo fi gis rek lenn la ku teraangaam yi kooku mooy alxaaji abdallah mi nga xam ne moom lañ tuddee guddi gii mu nekk sens képp koo xam ne ronu nga tànt bii tey jii nii toog fi am ay soxlo ñu jàng fi ay kaamil Cheikh Taha Hassan Deme war koo xatmu gannaaw bu Cheikh Ibrahima waxee ba pare kon loolu moo des ci jotaay bi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam bismillahi rahmaani rahim xam naa ñu olofal ko bañ ko arabal ndax buñ ko waxee ci arab dañ koy firiwaat ci olof ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem ki fi teew ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyoo bi nag maa ngi koy nuyoo mbooleem ñi fi teew moo xam ñi bàyyeekoo ci biir kawlax wala ñi bàyyeekoo ci biti kawlax moo xam itam ñi bàyyeekoo ci biir réew mii di Sénégal wala ñi bàyyeekoo ci yeneen i réew ndax suñu mbokk Gambie yaa ngi nii yéen ñëpp maa ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di xaasal ci nuyoo bi nag njabootu maam Alxaaji Abdoulahi Niass gi nga xamee ne ñoo fi teew tabaarakallaahu nekk ay doomi deretam ak ci doomi ruuxam Euh, tabaarakallaahu maa naa naa ci tudd ñett bu ko defee ñu wuti ñu ci des ñaar ñett ñi ki ci ki ci jiitu mooy suñu mag sëriñ Cheikh Omar Niass tabaarakallaahu mi ngi nii toog bi muy ñëw maa ngi gis délégation bi nga xam ne ñoom la àndat dugal naa leen ci biir nuyoo bi danaa ci tudd tamit Cheikh Ahmad tabaarakallaahu wala ma tudd Cheikh Iyane bu ko defee doomi papa arabi mu représenté mboolem waa kër maam Khalifa moom itam tabaarakallaahu teewal fii waajuram ci suñu maam bi tadi jooju Cheikh Mouhamadul Arabi tabaarakallaahu ñu koy nuyu bu baax di ko di ko yóbbante yow ci suñu maam bu tedd boobu maa ngi nuyu tamit euh, Serigne Cheikh Tidiane yi mi nga xamee ne mooy suñu conférencier mu yóbbaale mboolem waa kër moom Aliou di jox nuyoo tamit Serigne Abdou Samad léegi la jóg moom itam mu yóbbaale mboolem waa kër moom Cheikh Omar di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi di njabootu moom la Xaaj Abdul Xaadir Sall tabaarakallaahu di nuyu mboolem mbokk yi nga xamee ne bàyyi nañ seen i yitte ñu wuy si ñoom ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa man amatul lu may wax sax xanaa kàddu yi sant ak ngërëm rek moom laa yëkkati ndax wax dëgg yàlla li yéene woon ci bis bi am nañ ñu ñuy sant nag mooy suñu waajur di bàyyi alxaaj mu tuuti nga xamee ne bis bii lépp moom la ndax yàlla dogal na ne li Mawlana Cheikh al Islam alxaaj Ibrahima Niass waxoon ci bàyyam te mooy fa kullu maa lanaa fa xasanatun min xasanaati ci moom lépp lu ñu tabaarakallaahu moo ñu joxoon ndigal ci bis bi ndax biñ koy fondé dañoo gis ne mbooleem jabati alaaji Abdoulaye ñi ci ëpp am nañ ay bis ba lenn ci ay sëtam am nañ bis mais maam alaaji amagul bis ñu ne daal donte leen néew nañ kàttan néew nañ ci ay at néew nañ ci xam-xam danañ fondé benn bis tuddee ko bisam ñu ko maam alaaji Abdoulaye moo ci fukki yoon ak benn tabaarakallaahu boobaak léegi ñuy jéem ba tey sax du naagu ne mën nañ ne tamit tabaarakallaahu maanaam jég maanaam jéggi na huit ñaari at yi passé yëpp bu ci nekk tabaarakallaahu bis bi nekk na lu mat huit cent mille bis buy nekk huit cent mille nag bis bu ndaw moo tax itam ñu ngi ko ci sant bu baax moo ñu ci jokkoon ndigal dañu maa ngi maa ngi dund gannaaw bu ma génnee àdduna sax gannaaw la ci ndigal te ndigalam doy na te doy nañu ñu ngi koy sant bu baax di sant tamit suñu waajur wu jigéen soxna Aminata Niass di doom ci alxaaji Babacar Niass moom itam su mosuñoo seetaan damay wax ne man su ma amee xam-xam tabaarakallaahu sama baay dugal na ma ci daara ji di ma jàngaloo mais sama yaay tamit ma waroon encouragé dëkk bu ma mos a nekk di jàng ci Bushra tabaarakallaahu ci Gàmbi fu ma mos a nekk fekk na ma fa bu bu ma nekkaat bi ma nekkee Gàmbi ci suñu Aliou Sakho dama daan toog rek mu wàcc ci frontière bi oo ma téléphone su ma ooyee rek ma fa pàkkar bi door a dem wujj bi am naa xaalis su ma demee ndeysaan mu tibbal mu lu am solo ma ñëw ci laay noos ay fan balaa moo jeex mu ñëwaat loolu def na ko ay yooni yoon biñ nekkee ci maat bi moo ñu daan fayal di ñu jox ndékki man bi ma nekkee ci maat bi leer na Cheikh Ibrahima man boos laa woon vélo pédale la ma ma ci koy dawal di ci jàng leer bu ma xëyee jox ma dépense bu muy ndékkee tabaarakallaahu te loolu bëri ñu ko daan defal musuma jënd téere ci bi may jàng waxtu wu waxtu wu ma soxlaa téere fekk na maanaam njëgam a ngi teew moo tax ñu ngi koy sant bu baax tabaarakallaahu di ko gërëm ba léegi taxawaayam ci bis bi maanaam ak ci suñu lépp ba léegi tabaarakallaahu taxawaayam am na solo ñi ngi sant bu baax nag sama frère yi di sëriñ Maam As tabaarakallaahu ak sëriñ Alaaji Sëtu moom ñoom itam kenn du ñoom sëriñ Alaaji Sëtu tabaarakallaahu bis bi fekk na ko ci ren alalam dem na ci xalaatam dem na ci mais yitteem tamit tabaarakallaahu dem na ci te chaque année tamit noonu la koy defee maa ngi sant bu baax sama sœur soxna Fatou Niass maa ngi sant tamit sama rakki boobu sëriñ Ousmane bis bi bi ma ko ba légui man moom ànd keroog bi muy bi ñuy yobul sëriñ mohammed jaay mi kàtt ñoo ñoo ànd fu ma taxaw mu taxaw ci sama kanam maa ngi koy sant bu baax di mi nekk nekk sëriñ nekk sama da ko futteeku boo ko féké ci biir sax muy liggéey da ngay japp ne ki talibé yi la do nag ooy fam ak mbaaxam di sant sama sœur soxna fan yes soxna Ndeye Fatou sama soxna ak mboolem mbokkam yi waa Touba Sano wa waa kunda ñepp gis na leen fi ñu japp ci liggéey bi di sant timit soxna fan yes di sama doom di sama soxna moom itam tabaarakallaahu moo yaayam ak ñëpp sëriñ Moodu papam léegi dafay bàyyi ko maa ngi sant bu baax tamit sama waa kër papa waa kër maam Ahmadou ñoom ñëpp góor ñi mais rawatina jigéen ñi nag jigéen ñi ñoom ñëpp tey fi lañ yàgg di di liggéey moo tax maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm bu baax sama dëkkandoor yi dëkkandoor yu baax la am koñ bii mën naa wax ne man maa fi sant Ñas gannaaw gi ci defi sama maam Mouhamadul Arabi wala man ma koy wettale mais bi ma ñëwee ci biir koñ bi dafa mel ni koñ bi yëpp ñes ne sant tabaarakallaahu ku ku ci nekk balaa wax wax na kuy bopp di métti sax mu ne xaaral ma dem kenn du ma ci saalu amul kenn kuy wax Ibra Cheikh Ibra rek la ñuy wax muy mag muy xale keroog am na benn xale bu yaayam yónni mu ñëw ne ma ana tonton Cheikh Ibra ma ne ko tonton Ibra rek doy na wala Cheikh Ibra rek doy na tabaarakallaahu rawatina nag ñii ñu dëkkoon di euh, suñu yaay ajam ma gi ndaw ak sëram soxna Xari Ndaw ak euh, soxna si Sissoko ak soxna see seeni bu Sarr ak tamit waa ndaween li si fa am bu ziyaara jotee wala gàmmu maanaam ni ñuy dundee ziyaara bi ci kër gi noonu lañ koy dundee tamit tabaarakallaahu ci seen kër marhaban bi ahli waa France <laughs> moo tax itam waa ndaween maa ngi gërëm bu baax soxna Fan Ndaw tey gan yëpp moo ma leen dalalal tabaarakallaahu di leen toppatoo moo ngi yaa noo ko yar ñi ci aju eh, ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di sant bu baax ñi ña mbokki kilifa yi nga xam ne muy si nañu suñu maam Bay Touré ngi nii suñu nijaay Mouhamad Diagne sëriñ Amadou An sama yaay Sukay sama yaay soxna day amee ngi nii di doom ci Baye Alxaaji Omar Xalifa maa ngi koy sant tabaarakallaahu sëriñ Moussa nekk ci koñ bi moom itam heure bu ñu jàppee bis bi day summeeku di ànd ak lépp lu may lépp lu may def man moom koy defandoo maa ngi koy sant Oustaz Youssouf Diouf mi ngi nii jógee ko Casamance ak soxna Fat Dieye Casamance ni chaque année rek ñu jaral ko mu dagg paas yi te avant muy ñëw jàngal na ma kaamil foofa ca Casamance def ko addi maam Rajab Ba tabarakallahu maa ngi sant bu baax sama maam yi bopp ak imam Mouhamadul Arabi sama maam la sama papa la mais sax su ma toogee moom dootuma sentir ci maam ji du ma ci papa ji mais damay sentir ni sama morom la Cheikh Iyane ngi ne damay toog ak néegam muy xàqataay mel ni ku toog ak koo xam ñaar ñoo bokk génération di waxtaan ak man ne ma dama laa nawloo damay ñëw soxnaam di ma wax ne ma samaam dalay euh, dañuy toog mu lay tudd te loolu maanaam mbégte la ci man fierté la ci man jouru gàmmu damaa toog di sangu génn sama yaay gi ne ne ma sama samaam arab bi léegi dafi gaare oto loolu la seet ku toll ni maam arab yi nekk doomi maam xalifa nekk imaamu grande mosquée bu lew nañu seet bisi gàmmu taalib bi yëpp bëpp ñëw di ko seet si mu xëy suba teel ñëw gaare oto fii ne man lay seet loolu réy ci man bi ma génnee ma ma ne ma ne ko xaaral ma daw dem fa bi ma demee mu jox ma ñaari enveloppe ne ma lii daal du doy benn bi yaa ko moom benn bi sa papa ko moom barke alxuraan te noonu la ko defee keroog bi may ngénte ceeb bi ñu fi togg ak diwlin ji ñu fi togg yëpp waaw diwlin ji ñu fi togg ak ceeb bi ñu fi togg yëpp ci ngénte bi moom moo ko def tey jii tamit bi bis bi desee une semaine ci la ma yónnee ceeb bu bëri diwlin bu bëri jaarale ko ci sëñ yaay mais jënduma ceeb jënduma diwlin ci bis bi te loolu yëpp moom la maa ngi koy sant bu baax tabaarakallaahu di ko gërëm di gërëm tamit sama papa boobu sama maam di Cheikh Ahmed Khalifa Niass tey ci suba moom moo ma tàggee tàggee bàjjen Seyda depuis ñu jàpp jour bi toujours démb la ma yónnee vocal fekk daf ma oo téléphone fekk maa ngi def mission mu mu yónnee ma vocal bi ma paree ma woo ko téléphone mu ne ma ban heure nga bëgg mu ñëw heure boo wax ci daa ñëw ma ne ko vingt et une heure et allah ci lañ ci lañ bëgg nga ñëw mu ba démb bi may tëdd oo war na ma téléphone tey ay 14 heures bi mu tegee ay ci la ma ci la ma woo téléphone ne ma maa ngi nii ci yoon bi doon ñëw mais damay bañeeku dellu a Dakar parce que dañ maa tàggee sa bàjjen Seyda Manane wax na ma ko lu mat lu mat waxtu nit ñi door kaa commencé di wax tabaarakallaahu moom itam dafay yëkkati téléphone am waxtu wu ne di ma woo di ma conseillé euh, su ma toogeek ak moom wala may wax ak moom téléphone ma sentir sax ne ki may waxat sama maam la wala sama papa la ngir maanaam naw loogu ma naw loolu mooy li leen mag ñi nawloo woon démb ngir dañoo nekkoon ay ndaw yu yittewoo xam-xam ñoom itam noonu lañ bëggee tamit tabaarakallaahu ndaw yi nga xam ne ñoo meloon ni ñoom démb muy sama maam arabi ak sama maam Cheikh Ahmed Khalifa maa ngi leen di bu baax tabaarakallaahu di bu baax di nuyu bu baax sama ustaas boo bii xam naa ne yàlla dafa dogal ñu doon tafsiral ñaari nit ñoo xam ne dañoo bàyyi ko woon Fuuta di leen fi leen alquran muy euh, Cheikh Malick Thiam di sët ci maam tafsir Moustapha Thiam bu Fuuta ak Euh, tabaarakallaahu Cheikh Ahmad Thiam di sët ci maam Tafsir Balla Seck bu Fuuta yàlla dogal ñu ñëw fii ñu leen firal alxuraan boobu sax xam jàpp buñ bis bi xamaguñ ne tamit dana tombé mais biñ demee ba bis ba jàpp bis bi rek ci la tafsir bi daal barki démb laa laa xat mu sëñ Malick Thiam ci àllarba ci maa ngi leen nag bis bi incha allah ci dañ leen defee matériel comme ni nga xam ne seen maam yi noonu la leen maam El Hadj Abdoulaye Niass defee leen matériel man euh, maam te timi dama pare pour nek soldaram ci ñaar nak la koy liggéeyal te moy daara ji fi bayyi won te joxon ko mam khalifa ak mbooleem rakam ñaaral ba tamit ci bis bi li moy mission bi nga xamne mom la ko doxal la ci bis bi bu joté lepp lu ma am ak lepp lu ma man ak képp ku ma xam tabarakallah dina dina la ci daara ji tamit euh, lepp lu ma am ko man suma toge ñak sax suma toge jangale manam bi may am moma gënal am dépense loolu euh, li tax nga yëg bu nawet boobu nag mooy maam xaaj Abdoulaye Niass mi nga xamee ne moom laa wut ci daara ji yàlla ñu ko yàlla fayal tabaarakallaahu ñi ngi euh, bon ñi ngi sant ñoom ñëpp sant ñëpp di ndax suñu dara bi tedd gi nga xam ne mi ngi bàyyi ko faas bis bi nag bu ñu ko jàppaan comme ñu ko xamee dañ ko daan dara ñaar kenn kenn ki nekk doomi maam Alaaji kenn ki nekk mu xadamam ren ñi ngi tànnoon maam Malick mi nga xamee ne doom la woon ci maam xaaj Abdoulaye Niass li ñu waroon def nañ ko dem nañ ci njabootam yóbbu leen invitation ne leen timit defuñ ko ngir xaalis ndax buñ ko doon def ngir xaalis politique yaa ngi soxla ku leen tudd ci programme mais bis bi dañoo bëgg mu sax laa jàpp laa gis moo rek tabaarakallaahu demoon nañ fa yóbbu leen carte xëy na dañoo am ngànt ñaareel ba tamit mooy njabootu maam alxaaji abdul xaadir sàll mii nga xamee ne maam alxaaji bi mu gàddaay xelam dañu fenn du may foofu daaw jéeg sax yàlla dogal na bàyyi xalifa sàll mii ooma téléphone fekk maa ngi fuuta mu abdul bi kat samedi di samedi di la ndaysan nak mu métti ma ndax lama xam fofu ak lama xam ci ñoom ak lima bëgg a bokk ci ziare ma leen laa ci mën a moy bind qasida yónnee ko ci la waxone ya man ila fasi yadwi wi kullu mawmaati tuwaasilan na masiran duna rahati iqra salaami ala xabrin yuqimu bihi عين الهدى wal ذات الكمالات kamaalaati الزمان وان wa imdaamul بها bihaa bahaa wal xawmi bahjatuhum نور الهداية مصباح طريقة أمر نسالكين بها من كل ويلات ذاك المقدم عبد القادر العالمي الذي له منزل فوق المنارات بحر العلوم فقير الدين ناصره من فل بالعلم شبات الجهالات هدى وأوصل أقواما بموكبه إلى النجاة النعم من كل ويلات له من الحاج عبد الله مسنده ما وصفه أحجز عن كل العبارات li ma ciy firi rek mooy xadaa wa awsala axwaaman bi mawkibihi ila najaati naam min kulli waylaati dafa taarif benn téere bu tudd mawkibu najaat bi ma ci jotee liir ko téere bu mel ni moom ci tasawuf du ma wax ne xamul mais bëriwut ci maanaam euh, arab arabiyatu bu neex mais tamit ci wax ju jub mais tamit ci ay laay biir yoo xamee dafay tàbb ci xol moo tax ma ne moom laaj Abdul Xaadir Sall gindi na aw nit yóbbu Euh, mais mi ngi leen jaarale ci gaalam googu ndax maa fi bu na jaati mooy gaal ak mucc ma ci gaal googu la leen yëpp yóbbu leen maanaam musal leen ci mboolem musal ay jaboot tabaarakallaahu yàlla ñu koy àlla fayal njabootam ngi nii ñëw nañ def délégation bu am solo mën nañ fukki nit ak juróom bàyyi seen ku nekk xam mu xatee mais ñu ñëw wax naa leen ne damaa gis ne bisu ren bi dañoo boole ñaar ñu nëbb mooy El Hadj Abdoulaye ak moo tax bis bi ñu nëbbaat ko ci biir jéem naa lu ne pour ñu def ko ci mbedd mi mais mënta nekk parce que ñoom ñaar ñoo bañ seen maxaama yee tax te ren ci la fukki at ak benn tombanteeg timit mam alaaji ci la sancaat euh, maanaam ni am na tan tanaasu te xam na ne bi ñuy préparé bis bi di leen di leen ko bëgg a tuddee xalaatuñu sax loolu euh, tey jii laa toog di xalaat rek sama xel dem ci loolu mu nekk ilham moo tax yàlla ñu leen yàlla fayal ci darajaay yonent bi euh, ci barke alxuraan Euh, ñaar ñooñu lañ ko dara jaale woon tuddee ko tamit suñu xarite boobu bii di Cheikh Mouhamad Ndiaye daaw Cheikh Ibrahima moom moo ko téléphoné ma damay takk jabar te yow yow yaa may ñaanal moom mii bi ñu xamante ci maar bi lañ xamante dañoo gisante rek mel ni yàlla daf ñoo wax ne da ngeen war a ànd ñu commencé di ànd boobu ba léegi yu bëree bëri xew na mais moom soppeeku ziyaare bu jot gàmmu bu jot lu xew rek sama kër lay ñëw sama yaay toujours ma ne ma sa waa ji de daje nañ ma jox ma addi àla jëm laa gis ku ko bëgg la sama yaay gi ne toujours rek ma ne ma sa waa ji jox ma addi àla jëm laa gis tabaarakallaahu muy Cheikh Ibrahima daaw daaw nag euh, Cheikh Mohamed Ndiaye ànd na ñaari yoon dem ci dëkk soxna si ma gis ne bi ñuy ànd xale yu bëree bëri misig ak ya ci aja dañuy dañuy wéttali ko mais moom mi ngi wéttali ko ay xamda yoo xamee ne tabaarakallaahu Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass moo ko bind Cheikh Mahamadul Mahi Aline Cissé di ko way wala euh, maanaam waykat bu am solo boobu tabaarakallaahu bu ko defee bu koy teg ci otoom te bu koy teg da ngay yëg ne dafay xaal bi ñu nag ci laa oo Cheikh Ibrahima ma ne ko waaw sa waa ji moom fu mu bokk mu a ma kii xanaa xamoo maamam mu ne ma damay wax ne ma teraanga bu mu am sama maam ganaar yi daan takk di ko indil maam laajëb laañi si laa ko jëlee moom moo ngi nii moo ko wax tabaarakallaahu ba tey tamit mu waxaat ne keroog biñu demee di yóbbu maamam heure bu toogaan ak maam laaj maam laaj du nangu ku leen ñetteel parce que dana Cheikhul Jaan moo ñu ñetteel ñun ñaar bu toogee kenn waruñoo ñetteel ndax Cheikh Ahmadou moo tax moom lañ tuddee bis bi tabaarakallaahu mu def teraanga bu am solo moom itam eh, yëkkati teraanga ju rëy jox ñu ko ne ñu nañ ko def ci bis bi ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla fayal ñu di gërëm tamit ki doon wax ci sa kàddu tabaarakallaahu kàddu bu am solo la wax di gërëm ñëpp nag képp ñu fàtte rek di gërëm tamit sama waa télévision yi tabaarakallaahu Alfayda Tijaan yi tabaarakallaahu Samsu TV Miraatu Safa TV ñu ngi nii tey ñu ngi koy wane ci àdduna bi programme bi nit a ngi nekk fu ne di ko déglu di ko seetaan ñu ngi gërëm tamit waa Jafalaa ñoom itam tabaarakallaahu ñu ngi koy jàllale ci seen rajo xam naa rek euh, bala ñu tëj ñu fàttali leen kaamil yi nga xam ne jàng nañ ko Oustaz Youssouf Diouf Casamance jàng na ma kaamil Cheikh Mouhamad Kébé Louga damaa pour bis bi lu ma intéressé moo tax gox yu bëree bëri ci àdduna bi ak gox yu bëree ci Sénégal bu jotee rek damay wax nañ ma jàngal ko kaamil ak yaramam laa jëm laa gis Oustaz Youssouf Diouf Casamance mi ngi nii Cheikh Mouhamad Kébé Louga Cheikh Mouhamad Ka Sangal Kam jàng na juróom-ñaari kaamil Cheikh Tidiane Cissé Saint-Louis Alaaji Sall euh, Bamb Alaaji Babacar Sène Diourbel euh, soxna Aïchata Niass fii kawlax euh, Coofok Mouhamadul Mansour Diop Tiwaawal Abdourahmane Niass Brésil Alxaaji Abdoulaye Thiam Paris sëñ Pam Widaan Italie Alxaaji Diop Sam Khalifa tabaarakallaahu sëñ Ahmadou Thiam ak sëñ Mari Thiam Kaolack muy ñaar fukki kaamil ak benn 21 kaamil tabaarakallaahu moom lañu moom lañu moom lañu di ñaanal mboolem nag ñi nga xamee ne bàyyi ko nañ fi te ñenn ñi daan teew ci programme bi yal na leen yàlla yërëm ki ci jiitu mooy suñu waajuru tedd bi bàyyi ko bi Seyda Mariama nga xam ne moom jëmmi alxuraan la tabaarakallaahu suñu rak soxna Awa daaw mi woon ci jataay bi daan sonn ci ñun bëggoon ñu lool bëggoon ñu boppam nga xam ne maa ngi moom namp nañ benn weer ak turandooram di maam Awa Cheikh mi nga bi nga xam ne soxla la woon ci noonu xaaj Babacar maanaam meer ñaañ ba biñ dëkkaloon nii heure bu bis bi jotee daana yëkkati alal di ko ci def di ñu conseil benn bis ñaanu tam xarit dafa jot ma ñaan fii ba pare rek mu xaal ne man su ma yëgoon sama doom yëpp alxuraan la ñuy jàng ku bëggoon lu baax la meer ñaañ ba yal na ko yàlla yaram tabaarakallaahu euh, maam Fat Samb suñ bàjjan suñ maam ak soxna Jey Sarr bi nga xam ne moom waajoon na bis bi keroog ci tabaski ñetti fan ci lañ dajee mu ne ma bis bi dinaa ci ñëw yàlla dogal bis bi mu desee une semaine ci la faat dama ko yàlla yërëm ak mboolem nag ñi nga xam ne tudduñ leen ngir ne tabaarakallaahu suñu xel ak euh, ak suñu mag sëriñ Amadou Awa Niass moom itam yàlla ko yàlla yërëm ci armée la génn àdduna ak mboolem ñi nga xam ne tabaarakallaahu xëy na suñu xel fàtt na leen mais yàlla xam ne leen yàlla leen yàlla a ñëpp ci daraja yoon bi ñi nga gërëm ñëpp di sant ñëpp nag xam naa damay yëkkati kàddu gi rek jox ko sama sëriñ sëriñ Baye Mor bu ko defee rek ci cinq minutes mu ñëw def kalimatu sukkur bu ko defee météral ma ñii ndax moom jàngal na ma moo ma jàngal euh, tabaarakallaahu téere bari nga xam ne mooy muqaddimatul iziya muqaddimatul kunti bu man naxu la naxu yu la jàngal na ma timit ci ibnu malik tabaarakallaahu déglu naa ci moom timit yeneen i téere ndax yàlla dugal na euh, sama papa dama koy wax ku bokk ci maamul xaj baax yes daanaka loo dégg rek mën nga kaa hmm. bëri na téere yoo xamee ne ci moom lañ ko dégloo jotuñ ko jàng sax tabaarakallaahu bon lu ñuy jàngal ci ay téere bu ñu na dana gën a saxal mais ñaar yi def nañ def nañ ko darsi ci moom moo tax itam damay yëkkati teranga ji ngir teranga xam-xam bi ñu solal bu ko defee sëñ Malick Thiam ak kii jëriñ mu ndokkal leen seen i kaala tabaarakallaahu bis ni ki tey mu tudd tafsir comme ni nga xamee noonu la El Hadj Abdoulaye tuddee woon tafsir bala tafsir tuddee ko tamit tabaarakallaahu tafsir mu saxaar ñi ngi gërëm ñëpp nag képp ku ñu tudd rek nga xamee ne xol bu sedd la tabaarakallaahu ak tamit maanaam euh, coono bi mais ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi gërëm Cheikh Ibrahima bu baax ndax tabaarakallaahu gis ni waxtu mu ko jàppee su ma ko wooyee rek dana dana ma dana ma invité këram mu def réunion boo xamee ne pour lu réussir bis bi loolu nag cofeel bu mu am ci maam laajab laajis moo tax sëriñ yi yaa ngi jërëjëf tabaarakallaahu moom sama euh, waxandoo la damay toog rek mu ñëw sama kër di ma wéttale tabaarakallaahu sëriñ Ahmad Ziñoor tabaarakallaahu mu ngi nale moom itam ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaara waa bu dayda tabaarakallaahu ñu ngi gërëm ñëpp sëriñ Alaaji Caam jógee ko ba Dakar géwélu maam xalifa yi sama maam euh, Mbaye Touré ma nga nele moom itam nekk kilifa ak suñu néeg bi tey tabaarakallah Cheikh Mahamadou Nazir Cheikh Abdoulahi Thiam su ma ko tudd toon rek ma paree rus ma nga nele bàyyeekoo naa tabaarakallahu ba kër Amar Sène moom itam waxtu wu ne bu ñuy waaj bis bi dana ma woo ne ma wax maanaam defal nangam defal nangam xam naa sax maa ngi fàttali ko boo xamee ne muy bàyyi Modou Niass wallaahi kenn la woon ci bis bi mosuma kaa yëngal bis bi lu may jox na ma ne ma defal nangam te bu ko defee gis yëkkati sama àddee dem ziyaara ji ko parce que man moom dafa ma saf ma alaaji ñoo ma fa mujjee dara sama yaay ci biir couvre-feu bi boobu ñi ngi ñi ngi ñi ngi xaay ma xëy rek am ma guddi jot rek ma ànd sama doom bi àll bi dem yóbbu ko dem nuyu ko ma ne ma sa doom la ma ne ko waaw maa ngi ko fekk muy fi la ndeysaan yàggut matul un mois wala lu ko topp rek mu faatu yal na ko yàlla yërëm ci daraja yonent bi maa ngi gërëm maa ngi gërëm ñëpp tabaarakallaahu di sant ñëpp di gërëm timit sëriñ Modou Sall ñu ngi tayba Hadj Ibrahima Diouf alaaji abdoulahi Diouf ñoom ñàpp tabaarakallaahu sëriñ biram mbay xam naa nga jege si am na xasida bu rafet bu mu def ci maam alaaji abdoulahi Niass man maa koy njëkk ñu yi nag di ñaan mboolem ku fi nekk nga yëkkati àdd yi jox ko dafa dafa dafa fent way wu bees envoyé ma ma ne ko ñëwal da nga ko way tabaarakallaahu ci bis bi sëriñ biram jege si tabaarakallaahu nga taggal ñu maam alaaji abdoulahi Niass si ñetti minute jàpp ñeenti bu ko defee tabaarakallaahu bu pare si naa ma barkeelu sëriñ bàyyi defal ñu xatmu bi bu ñu paree Cheikh Taha Hassan Deme tabaarakallaahu moom tamit eh, defal ñu xatbul Quran te mooy kaamil yooyu nga xamee ne moom lañ def di gërëm ñëpp nag di jégalu nag képp koo xam ne waroon nañ la tudd rek te tudd xel mu fàttu la wa axiru da'waana alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum wa wa barakaatuh Cheikh bi daan xam naa mën nga jege si. Kutubu boya ارتب شيخوتي جان وانا الهادي بابا كر اخركم على عمرنا الهادي يا مالك حاجي عمراني جان شيخ الرجال الحمد لله الحمد لله رب العزة والجبروت عالم السر والنجوى الذي يحيي مثله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على منغذ البشرية من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والحق والحقيقة سيد كل احمر واسود سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله حبيب الله وعلى اله واصحابه افاضل مبقي قلنا وبين سنتقي برمب سبحانه وتعالى يجي اللي تجي ينتبه عليه الصلاة والسلام دوا الحمد لله رب العالمين نخ jotaay bi fi toog rek e, yokk teral ndax e, liñ fi nokki diñ ko boolee ci sa dund gi te mel na am na barki ndax kenn yëngatuwut li ñuy guddi guddi yëpp li ñuy sedd sedd yëpp yëpp a xaar naa ngi war dem ak waral waaye dama ko mujj fomm kon Cheikh Ibrahim ñu ngi lay sant bu baax di la ñaan borom bi subhanahu wa taala di wax ne moom innahu insaan munfatih maanaam doomu aadama maanaam bu am maanaam ba ubbeeku la ku baax la ndax baax rek mooy nga jaar fenn jàngee fa di ko tudd maanaam ma man maanaam masa gënalu ma ndax lu ñuy def ngir yàlla tax waaye moom fu mu nekkee rek dana ko tudd kon bu koy tudd dafay melni ana damay gis sa bop la mo def yàq fa mom ku bax la euh te ku jambar la nak bokon na ci nga xamni ñen ma gis ba ma xamé hon nañ ko euh insaan mutawaadi te wàcc sa bop rek yéen ñëpp daa ngeen xadis bi man tawaadaa lillahi rafa'u lahu سيدي حاج مالك بأدب وصل من قد وصل بتركه فصل من قد فصل من الكتاب أما العرب جد الجار المجروم يفيد العصر وتقديم الصرف يفيد العصر وتقديم مفعول يفيد العصر من بأدب كتاب وخل ما لا تقام قام بعلم لا لا قام قام في ليه وخل أهل بأدب وصل من قد وصل deddin ci la doom adam ajje ci borom waye ci ñak teddin ci lay daanu ba faaw mom nak insaan mutawadi وله باع طويل في اللغة العربية إنه شاعر كبير أيضا نحو في الليل ما شاء الله ومن الدجار يولا ويتكي يولا ما نام درجة لما من وراء كالا هناك شرح بري من ناتن كتب تج القرآن تسود يخلص أكفل يقين ناسي من دوي السكر يلا تودي أقول له أحد مسود يخلص إيه صاروا سلا من أكل جفة نك تجادني بي جفة الناس كلهم هلك إلا إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على قدر عظيم انت في الله عليه وسلم يبقى عنك معناها نرى قبل قريب خمجة انت عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد مويكي قلت ديك عرق الناس كلهم هلكة خم إنما دفنا فعلا لوصف كقطيل وزن وهالك وميت به قم ما تقف فعلا تقف مشكلة أرى من تقف فعلا فعل مشكلة هلكة ويهلكوا موتى قتلى زرعى زمنا من الناس كلهم هلكان يبقى لكم نرى برم خم خمي من من من من هو العالمون كلهم هلكا الا العامل ترى نيجي في قمقم نعم، علم بلا عمل كمصباح بلا نور ليه بكرا فيون نيب تاخو كون قمقم لي مي ري ري ري ما جيبيغا واي مون ني جيفي قمقم ها ني نتي داشي ندار ني سالال واي ني سال ني داشي نيوم تي ناخ نعم. boo sellalee seytaane ngi taxaw maanaam di la xaar pour mën a bëgg laa yàqal mais yéen ñëpp xam ngeen yoonu yàlla ay pax la ak i danger yu dul jeex kon doy na sëkk ndam nga bëgg maam Hadj Abdoulaye Niass te ku ko bëgg am texe hunaa wa hunaaka lii tegtal bi mooy. nee Mama hajar Hadj Abdoulaye Niass mooy firi alquran téeméer yoon ak fuk ak ñent mu tolok limi saari alquran yi mu tolok jami'u mom mu commencé xawma bi premier premier première bi moy ñentel bi yon yalla nek téeméer ak fuk ak ñent kon li wax ci mahabbatu bi leer na man na mini na mu ñak dépasse mu dem jàngale moo gënal kon kooku mi ci yoon wi innahu ala darbi kon yàlla nga ak Cheikh Ibrahim xam naa du ñu guddal eh, ndax waxtu xam na lool ñu woo ñi nga xam ne man Malick Thiam ak kan si Ahmed Thiam bisimilah ngeen ñëw fii wala da ngeen a bëggoon a jaar ma jaar ci xuloo laa xam naa du fi du fi xaj na waaw waaw bismillah yaa cheikh bismillah خارج 아무도 지 않습니다. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا القطب المكتوم وخاتم المحمدي المعلوم وابن عباس أحمد بن محمد التجاني وعن سائر الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين mbokk السلام عليكم ورحمه الله يعني ngi nuyu ñëpp di ziyaara di jégalu ci kàddu yi nga xam ne mënoon naa ñàkk ngir ne jotaay bi gudd na lool waaye mënuñ koo ñàkk sànni ngir mbégte gi nga xamante ne nii am nañ ko ci jotaay bi nga xamante ne nii jotaay yu yàlla la ndax dañ fi màggal góor goo xam ne góor gu màgg la Seydina Abbas euh, Abdullah ibn Abbas doon na wax ne aksiru min zikri Omar fa in zakartum Omar zakartumul in di tudd Seydina Omar ndax bu ngeen tuddee tudd ngeen maandu bu ngeen maandu tudd ngeen yàlla El Hadj Abdallah El ku ko tudd tudd nga maandu tudd nga mbaax tudd nga xam-xam tudd nga wilaaya tudd nga jihaad tudd nga xam-xam tudd nga bëgg yàlla tudd nga bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tudd nga bëgg Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu kon li nga xam ne jaar na fi ci ay kàddu génne ci ay borom xam yoo xamante ne ne ñu sell leen Cheikh Ahmad Tidiane ñëpp dégg neen li nga xam ne wax na relation bi nga xamne ne maam abdullah abdullahi ak alquran waye sax dañuy wax ne maam alxaaj abdullah jëm alquran bu doon dox la ci kaw suuf ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaj neen soxnaam sayidna aïcha lan moo nekkoon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana xuluquhu alquran te amul kenn nit lu mu meuna sik sik sik mu a sik ne maam alxaaj abdullah bokku ci wali yi nga xamne walid muhammadin kon القران دون دوخ تي كو سوف لا موتاخ اي القران وي دوخ تي كو سوف لا موتا جور لولو مو فاج با تي سي سوت بي شيخ ابراهيم اكسيو ndaw la amé li mu def ni xéne ni mu doon jangal sax mu na moko mo mu firi la alquran ba metel len li moy هذه اخرنا تدل علينا li moy is مولانا شيخ حاج عبد الله نياس دو لرن دو خالص دو oto du kër waaye alquran moom la waxoon fële ca Égypte ca Azhar nga xam ne ëpp na junne at nekk manaara ilmiya ba borom xam-xam yi kenn ku nekk man mën naa lii mën naa lii mu yëkkati loxoom ni wa ana lii yadu tuulaa fi kitaabillah yadu tuulaa boobu mooy gudd mooy yaatu ba moo feeñ fii ci suñu soppe bi Cheikh Ibrahim dañ koy ñaanal yàlla yàlla musal ko ci cat yàlla dëgëral ko yàlla aar ko sàmm ko maa ngi dénk sama bopp di dénk ñun jeunes ñu teew fi yëpp di jàppalante ak moom ànd ak moom ci suñuy xalaat ci suñuy xam-xam yu néew ci suñuy mën-mën ñuy ànd ak moom di jàpp bés bi di ko taxawee ndax bi bisu Maam El Hadj Abdoulaye la te kenn ku nekk ci ñun yaakaar naa ne yaa ngi yëg ci sa xol loo xamante ne ni yow rek yaa koy yëg te la ngay yëg noonu xasanatun min xasanaati Mawlana Haj Abdallah kon bis bi suñ bës ñun ñëpp nañ ci gën a góorgóorlu kon koo bàyyi xel ba nga xam ne tant bi dana commencé kon ba jéggi beneen koñ ndax loolu la maam alxaaji abdullah mérito ndax Cheikh Ibrahima wax na fi léegi Cheikh Ibrahim sama xarit sama soppe mais rexlaam boobu nga xam ne def na ko faas léegi ko defatoon الحمد لله وكبر دفع لولو موني جلي فوتا اندي ني في سي مدينة نو مام الحاج عبد الله تي حسن بابو موني ترال با ني ترال لين تي بس بي ني اي ستام رك في نك با مان ما تي غنا خيب في مي نما يا جان خاتم بي كون ترال بابو nga xamne sama wajur jigeena ko ko ñew jël ko ci cheikh ibrahim nass Cheikh Ibrahim ni teraanga googu moom lay continuer dañu ko terale ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant ndax yàgg nañ man ak moom dépp ci daara ji depuis maaxaat xam naa ne ku ñàkk itte la waaye moom bàyyiwul benn yoon moom ñu nem na ko waxtu bu nekk dañuy diggal dañuy conseil dañuy xëcc ci mbaax waxtu bu nekk moom ak Cheikh Ibrahim nii dëgg dëgg ñu ñëpp ñoo bokkoon ci maaxaat mosu ñoo tàqali ko ñoo daan ànd guddi ak bëccëg waaye ba léegi loolu moo am doon ci jëmm yi mi ngi sore waaye am nañ yaqin te mi ngi yëg mi ngi dund na xool yi mi ngi ci waxtu bu nekk. ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm Cheikh Mouhamed Ndiaye mi nga xam ne moom lañ tuddee bés bi tuddee bu ñu ko ko tuddee ñun lañ ko tuddee ndax su soppe la muy ko baax muy ko lu baax ñu ko ñaanal yàlla di gërëm ñëpp. di jégalu ci kàddu yi lii mënuñ ko woon a ñàkk wax ndax Cheikh Ibrahim si soppe la te lii muy liggéey daf cee utu ñëpp te ñëpp dañ ko cee war a roy ndax lii moo nekk irsi bi lii leen war a xëccoo tekkaayoo ko puukare ko ne man li nga xam ne moom la fi maam alxaaji Abdullahi Baye man lii laa tànn lii mooy sama cër kon jox nañu dars nam nga suñu ittee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 وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القران العظيم امامنا وقائدنا الى الجنه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 ولنا فيها صلاح إذا أعنتنا على قضائها في مثل منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار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 واغدد علينا من حماك الأمنعين سرادقا من حد فيه يمنعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضار اللهم ندر بك في نحر اعدائك ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر كحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا حاضرنا وغائبنا وحرنا وعارفنا وطائعنا وعاصنا اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا هدية مقبولة منورة مرضية تحملها ملائكة الرحمة إلى روح سيدنا وشيخنا الحاج عبد الله اللهم بلغ ثواب ما قرأناه نورا لولاه هدية مقبولة منورة مرضية تحملها ملائكة الرحمة إلى روح سيدنا وشيخنا ومولانا الحاج عبد الله ياسين اللهم بلغ فرار ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية مقبولة منورة مرضية تحملها ملائكة الرحمة إلى روح سيدنا وشيخنا ومولانا الحاج أفضل الله نصر وإلى أرواح جميع أولاده وخلفائه وآله أجمعين وإلى روح سيدتنا الفاضلة خادمة القرآن شيخ مريم بنت الشيخ إبراهيم ناس اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين ولا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جودك وعظام اللهم إني أسألك إياك واغفرني لما أنزلت إلي من خير فقير بل إني إليك فقير وكل ما أنزلته فله انتهاء يبقى بعده الفقر ربي إني إليك فقير فما يكفي الفضل عن العفو ولا العفو عن المغفرة ولا المغفرة عن الإحسان والكرم الجميل الذي لم تطاع عليه أبدا فكل ما سواك لا يغني عنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين الراحمين ولا خير الرازقين وصلي وسلم على سيدنا محمد واقبلنا واقبل الينا بوجهك وادم علينا سترك وعافيتك وعطاياك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يغلب الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين বারাকাল